Safando kii lu ci di géew bi champion Boy Gueye ci di géew bi champion Boy Gueye ci di géew bi champion Boy Gueye ci diggi géew bi ci diggi bi champion Boy Gueye ay ñëwal gaaw liiru ay ca wulli préparel loolu am na solo nee naa la moom ak ki nga ni moom mooy wulli ñoom ñoo war a daje ndeysaan Ibou Seck lamp fay na boo nu ci mën a dimbale Ibou Seck lamp yi fay na boo nu ci a dimbale te dimbale ñu ci làmb ay ca Lirou Diane ala soosay wuli wuli wuli wuli wuli ngi noonu ay Lirou Diane wuli ngi noonu ala soosay wuli ngi noonu ne day sab wuli ngi noonu Kajoor a ngi billahi wallahi wa taala door ko mu tëdd kii du ma moromam kii ci victoire la jógee du ma moromam xaalis moo ma boole moom li ma rey li ma rey li may bëri kii mooy bëri li ma def def ko li may bëri kii mooy bëri kii mooy bëri ma ne yow da ngay wax loo ne yow yéen ñii yéen ñii waa Gambie te moom mos a gis victoire lu jaay ci lam amul man Bat Demba Ndiaye laa ñëw fii def fi saa cee waaw dama ne. daanaka Sa Thiès moom mi Sa Thiès dama ne dama ne Sa Thiès ka ko mën fuuf yow yaa la. ma ne waaye daanoo ko daanoo ko daanoo Sa Thiès. ma ne Sa Thiès moom daanoo ko da ngaa daw. même bu doon moom daw daw nga laa bëgg. ma ne même bu ma ne même bu doon moom ma. yaa Sa Thiès day dugg ak daan la yow magatam jàng yow mosoo daan mbër. lambar kat nga yow. lambar nga moon da ngay lamb. taxaw leen liir eh mu ngi arrière liiru arrière taxaw leen nii. léegi ay question na ma woo mu ne ma lii lu jaan wax de. lan moo may jox problème. moom la ah. mooy magu Balla Gaye 2. ak kan. du magu Lac de Guiers 2. ak kan. du magi Gouye Gui. ak kan. du magi Sa Thiès. dëkk fan. dëkk Géejawaay. déet waay. di monument Géejawaay. déet waay. waay waay man su ma amee lu may tiital maa war a rey. déet waay. su ma amee lu may tiital maa war a rey. mais luy saraxu combat bi. xar bu dër. xar bu dër. xar bu dër xar bu dër mooy saraxam moom. nee na xar bu dër ay sa sarax. waa kii bu dee mooy. magi Balla Gaye magi Lac de Guiers mu ngi ñu ay 100 millions mu ngi ko bëri am yow doo toog may la kii ma nga dem kàddu gi toog yéen ma yow doo toog yow yaay seen mag ñoom ñëpp ñoom ñëpp yaay mëni maa ba mëni maa jëli waay yaay daanaka man ku dof mënta la xam dafa dof da koy faj kii dafa dof wérul man ku dof am na gabitu nag wu dof amul bu mag nag wu dof laa koy jëlee nag ma daanee ma bàyyi bëre yaa wax sub billaahi gambiyee yaa ngi de xam nga benn affaire moo am ma nekkee mag man maa ndax xamoon ndax Balla Gaye suma rakk la Balla Gaye du mag xale la. mais bu de. ah oh, waa kii ban fan mooy ndam ana ndam bi lan mooy ndamam. daa daan ci poto. waaye bi pero day mbër. waaw yow dimbali waaye bi pero day ma ma ma booleeg moom damay liggéey. waaw wooteel léegi. ki may woo nee naa ko man ñoo su bis waa Gàmbi nañ ñu ministre rek Gambia muy a Gass ak sunu président bi fi dëkk muy Adama Barrow ñoo koy woo mu ñëw ci làmb ji te jàppale seen promoteur bi bu ndaw la day nekk ay ginnaawam gars yi dañ ko war a day jël ay di ci def ci làmb ji moom mii ku bëgg gis muuma buy wax da nga ñëw ndax fa lay jaaree wax ko faw mbaa mu fa dër ba faw looy tàggoo li ma tàggoo mooy combat bi la kii kii kii dafa bëgg kii Europe parce que lu am suuna Europe lañ ko mën a pare kii magat la day dem liggéey Europe moom moo ko def bu dee ba damay toog liggéey kii xam naa mënu ma daal. man maa ngi ko wax rek ñëpp bàyyi des fois. barke rasulillah billahi wallahi wa taalahi may la